fas yéene nañoo liggéey liggéey boo xamante ne nii euh, ñëpp dinañ ci gis seen bopp ndax wóor na ma ni euh, képp koo gis rek am na mbokk mu amee feebaru xel te tey jii war nañoo taxaw ñooñu ndax ci société bi lañ bokk bare waaye na ci ñoo xamante ne nii ñu yàgg ñu yàgg taxaw seen réew lañ tey ñu amee feebaru xel di dox ci mbedd mi euh, da ñoom dañ may wax seen li leen naqari mooy da nga ciy gis ñoo xam ni ci mbedd mi bu nawet jotee ñëpp xiin bi sàqi ngelaw li fëx dënd bay nodd kenn ku nekk daw uti foo foo foo jëm ñii di faj seen i di far di di fat seeni i yooyu ci ngund laak yu mel noonu ñoom ñu baleen ci mbedim ñu tawte seddaay bi day ñëw ku nekk di waajal looy jënd pour pour waajal ko euh, pour wattu sedd bi ñoom da nga leen gis ñuy ñuy sangoo seen i loxo di ko fag seen i te loolu yaakaar naa ni euh, ñoom ba ni am la dañ bokk ak ñëpp waaye bin ñàkkee tey la leen ñëpp daw te dangay ngay dugg ci kër fekk fa koo xam ne nee daa feebar feebar xel ñu yeew ko te yaakaar naa ni mook ñam dëkkal ñoo bokk ndey ak baay ak nu mu mën a mel woon nañ ko taxaw dañu ngi woo loolu ci ñëpp xeex bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi ñoo ci jiitu avant état di ñëw wala bon volonté bi